jéeg bi ngeen jóg ba àndandoo dajaloo fii ci kanamam fii ci kanamam mu ne am na ci mbégte lool mu ne am na ci yaakaar yi tam. mu ne moom soxna Aminata Touré am na ci sëriñ bi cër mu ne ndax maamam mu ne moom sëriñ bi ba muy gone toll ci ndaw ci am njàng. mu ne yàlla dafa dogaloon moom maamu soxna Amina Touré bi muy nekk jege kër sëñ mu ne mu xam ko foofu. mu ne yàlla def moom sëriñ bi mu bëgg ko sopp ko lool. safoo ko lool. mu ne xemmeem ko lool. mu ne waxtu ba mu fa jaaree rek. mu ne balaa sëriñ bi di jàll day jàll ci maam yi soxna Amina Touré mi nuyu ko. ba mu xam yitte jooju ci moom mu ne loolu sax na mu dox diggante moom sëriñ bi ak soxna Amine Touré mi toog mu ne kon cër boobu nga xam ne maamam amoon na ko ci sëriñ bi mu ne moom rek la lay jàppee te loolu rek la lay xoolee mu ne kon ñoo ngi gën a sant bu baax a baax mu ne bi sa taxawaay rafetee nii mu rafete mu ne mi ngi ci am mbégte mu baax a baax mu ne président itam mu ne fa mu ci nekkoon démb rek foofu la ci nekk tey jii mu ne dafa yokk waaye du wàññeeku mu ne noonu rek la demee mu ne daf koo dénkaane woon rek mu ne fa mu ko dénkaane woon mu ne tey jii la ko fa la ko gën a dénkaane tey foofu rek la ci nekk mu ne foofu rek la ci yem itam mu ne doy na sëkk mu ne jërëjëf mu ne sëriñ bi dafa wax ne mi ngi sant mbooloo mi am ak soxna Aminou Touré yëpp mu ne di leen gërëm bu baax a baax mu ne di am yaakaar ju ci taxawaay bi mu ne na ngeen gën a góorgóorlu baax mu ne ci jàmm jooju rek mu ne fu ngeen nekk yi fu ngeen toll mu ne na ngeen woote jàmm rek mu ne ndax alhamdulilahi rabil alamin képp ku woote jàmm ci senegal mu ne yàlla suñu borom mën na mën na la caa jox ndam mu ne moom sëriñ bi moo waxal boppam ne mu ne Sénégal ba amee sëriñ Touba mu ne boobee la amoon jàmm mu ne loolu rek la